fayda c'est la référence. kaddu gi eh, di àddoo fii ci studio Alioune eh, Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh yi Mame Assane Cissé mbokk yi salaamaaleykum dalee nak jàmm ci xibaaru wolof yi eh, bu ngeen taaxiloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a ci xibaar yi nak bokk na ca kii di El Hadji Moustapha Guèye moom nag laataa muy génn àddina làq na rek lu ëpp juróom-ñett fukk ci ay at waaye nag dundam gi yëpp ci jàng ak jàngale liggéey ak jaamu yàlla ca jeexal lu ni mel nag di ay. kàdduy seede yu tukkee ko ci kilifay pays bi waa Kër Baay Mahmoud Niass waa Komaaf ba ci imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé ñëpp ko ko seedeel loolee itam dan ca dikk ci njëlbeenu xibaar yi lu yàqu nag ci wàllu njàng meek njàngale mi kii di Mamadou Talla nag moo ko def ndaxte itam daawul di soo ko jàngalekat yi mësta fulaal seen i ay jafe-jafe lu ni mel nag tax na gannaaw ba ñu ko soppee ci gouvernement bu yees bi kenn ca ñoom jooyle syndicat bi sa SADEF ñoom sax nag dañu koo diril cin Mbaye Sarr secrétaire général national ba moom itam daañu ko dégg ci biir ak xibaar yi ñàkkum kaaraange gu tar ak it nag ay jafe-jafe yu am métier métier moom nag la ñuy jànkonteel jamono jire ñoom askan wa nga xamee ne ñooy ñooy ñooy dund ca coof ak mbambara te loolee nag dara tegu leen ko lu dul kon nag ndoxu taw mu mujjee doon seenu ko dëkkandoor ñoom nag mere nañu lool kilifa ya diwaan bi nee nañu dëgg-dëgg nag dañu leen a seetaan ab amal ak taskatu xibaar yi ñoom waa comité de développement ba daañu leen dégg ak Cheikh Tidiane Diagne suñu reportage yu bés bi nag ni ki tey jii dinañu yóbbu rek ca dagg bukki ca département bu ngeen gi bu buñ ca noppee toftal ca xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci yéene kaay yi mu yemboog li gën a fës ci suñu ay xibaar nees kiis ñu indi ci faram-fàccee. Le journal Ngoné Ndiaye ci euh, kaddu gi euh, fego ci ak Serigne euh, Moussa Kane ci wàllu xarale gi ak it nag na ma leen ko junjee gannaaw nag ba mu làqoo mu mel ni kii itam ne seede yëpp nag benn la moo xam xarit wala jege ñaale kii di imam Moustapha Guèye nag dundam gi yëpp da koo jeexal ci liggéey ak jaamu ay yàlla lu ni mel nag ka ko xamle mooy papa Mahmoud Niass ma ko daan weteli ci mission ya gannaaw itam ba mu dikkee ci xibaar baak na mu ko jotee jokkoo na ceek Cheikh Ababacar Dieng. xaritam la woon moo doon wéttalam ci mission yu bari Mouhamadou Mahmoud Niass alaaji Moustapha Guèye mi faatu àndandoowam la woon ne na sax bi ko doomi Moustapha Guèye ji nekk France woowee na ko sama baay dafa génn àdduna daa bëggoon na bu xibaar bi ba bët set waaye fi mu ne xewetu réseaux sociaux yi tax na dara làqootul Pa Mahmoud Niass la ko Medina bàyyi di wax. xam nga xaralu yu bees yi dara du umpe àddina fi mu nekk nii benn ëtt la daanaka boo ko yëgee sax ne naa bàyyi ba bët set ndax mu nekk xibaar bu tiis nga bàyyi nit ñi mën a dallu ba set ak jàmm fi ñu koy nëbbee fëlee la leen ñuy ooye def ko ay statut ba xam ne daj na ñaanal ko yàlla mu dëkk ak Cheikh Ibrahima Niass ci gën jaa ko yelee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam olof yi dañuy faral di wax ne di wàcc na liggéey waaye ku liggéey wut xawma nu muy wàcce liggéey moom nag ku ko xam rek xam nga ne liggéey na baata bi wàcc liggéey moom daanaka dafa mel ni moo tax mu wàcc dafa wàcc liggéey liggéey na ba wàcc jëmu ji génn àdduna nag nekkoon la bu wér waaye ab diire ngi nii nag yaram weddi woon waaw xam nga at yi yëpp taxu ko wér te wax dëgg yàlla macha allah yàlla may na ko ay fan te it dafa toogul nag noppalu dix heures fu mu ko fekk fatu na te quatre heures fu mu ko fekk jóg na te bu jógee dootu tëddati moom duy sieste du nelaw yoor yoor buy jógee ci jumaa ji mooy doxal boppam ci puur bi jënd mburu ñëw taalal boppam attaaya képp ku ñëw mu tuumal attaaya bu attaaya ji pare rek mu nekk ay six heures sept heures mu daal di taal otoom at yu bëri mooy dawalal dem liggéey bu demee liggéey itam fa lay toog bee añ fekk ko fa sax du añ ba bu ngoonee bu ñibbee ci lay toog kii donc dundam bi yëpp yëpp daf liggéey moo tax nag xam nga loolu mënta ànd ak wér wax dëgg fa yàlla ca Paris la France la génne àdduna ci jàngoroy xol dañ ko doon waajal opéré sax mu mujj noppalu waaw mi ngi génnee àddina Paris bés ni ki tey sax lañ ko waroon na opéré ndax dafa xawoon a jagadi ci mbiram xol ñu faj ko bu yàlla def mu tane waaye ñu ne ko da ngay bàyyi nag xarakaat yi waaye comme ni mu ko waxee rek la bàyyi doon wax rek till buñ ne ko lu lay feebar mu ne sub lu lay faj mu ne sub moom tam mu ne loolu la feebar bi moom nekk ci toolu yónnent bi nekk ci toolu yàlla bi rek ci la koy jëlee waaye koy faje itam tawfiq xam na ne li ko yàlla jox feeg jeexut ma nga ca tam jeex na fi nekk nag jeex na wàcc na ab liggéey na ko yàlla noppal yàlla lu jëm nag ci fan la ñu koy denc ca ndakaaru lam ca jolof ga mu fekk baax wala boog ci Medina Baye imam Moustapha Gueye mel na ni mbooloo mi mag tiijaan yi génn àdduna seen ak denc leen ci bërëb moom faaw mu am ñaari xel jamono ji njaboot gi xarit yi yeeg dénkaane gu mu fi bàyyi woon ci fii lañ toll am na fu xel yi daj daal tabax na jumaa ba jumaa ji pare mais am na fu na mu aju ci diine ji ak tarixa bi donc ñett fu ñu ko def def nañ ko fa ku xam li mu def daal ak li yàlla wax ci ku def li mu def fu mu ko mun tuutul pare feneen itam ma ngi ci aljanna ci loolu lañ ko yaakaara ci fàttali alaaji Moustapha gi bi muy génn àdduna làq na lu ëpp juróom-ñetti fukki at jaajëf Cheikh Babacar Dieng moom nag waaye dawlu boobee ku amoon nag jaar jaar la waaye itam nag ku ñu ah, tàggat la moo tax sax nag mu amoon a ah, benn ah, diplomatie bi lu ni mel nag ba di ay kàddoom moom papa Mahmoud Niass mi doon dikkaat tam ci ni mu miné woon pays bi ak it ni mu jaxasoo woon ak njabootu baay gi ay kàddoom ba tey ak Cheikh Babacar Dieng. lañ ko ci fàttali sax ñu bëri dañoo foog ne Saalum Saalum la ñu waaye ci ñun la bokk itam ndax la yonent waxoon rek Salman min na ahlul bayt ñun mën wax la bokk wax dëgg yàlla ndax tudd Moustapha Guèye wala nga dégg turam sa xel daj bàyyi loolu jafe na xataa ñun ñi sant ñoo sax mën nañ noo dégg saw tur te du ko lënkaleeg bàyyi waaye Moustapha Gueye moom ku dégg aw turam rek da xam ne lënkale ko na ak bàyyi da ko indi woon fii nag xam jàng moo ko fi indi woon mu yàgg fi lool comme ni mu koy waxee lim jàng li ci ëpp ci Baye Niass la ko jànge wala mu jànge ci ku ko jàngee ci Baye loolu nag mu yàgg fi jëlee fi taraxe Tidiane xarji yoo fi xam fi yàlla ñu def ko muqaddam def ko mu nekk xalifa Baye Jatara ca Seedo kon xam-xam ak njub daal moo ko boole ak ngir na bu yàgg aussi Moustapha Guèye tamit beneen relation bi mu am mooy daanaka ñu bëri sax yéex na ñoo xam ne taalibe Baay la ndax ci waxam diplomatie la si daan boole. loolu li ko waral moom mi ngi ko jàngee ci El Hadj Cheikh Gassama El Hadj Cheikh Gassama ñu bëri teelu ñoo xam ne Tijaan la gannaaw bi mu ba mu demee ba xam lim xam dafa mujj Baay comme nag daanaka formé na ko ci mbiram rajo daf ko wanoon ne ko rajo moom surtout chaîne nationale pour Sénégal yëpp la pour àddina yëpp la kon boo ko nekkee waruñoo xam fu nga bokk ci deret warta bokk ci dëkkuwaay warta nekk ci diine warta nekk ci tarixa diine ji moom ñëpp ko bokk waaye bu ñu xam fa nga féetee ndax alaaji Cheikh Gàttam moomu doon na mu jeex mu toog leen ne Baay Ñas ko taalif mu ne parce que su ko doon jàngale di wax ne Baay Ñas la am nit ñi duñ ko dégg te Baay Ñas da ko taalif rek pour nit ñi jëriñu ci kon nag mu di joxe nit ñi njëriñ yi ba nit ñi xam ko di ko bind lettre di ko téléphoné boobu sax téléphone amul waaye di ko bind lettre di ko wëri bi mu nag sa wax ne téere bi ma doon wax Cheikh Ibrahima Ñas moo ko taalif kooku nag moo formé Moustapha Gueye ci mbiram wax ci diine ci rajo jàngal ko lii moom te buy ca euh, jaxasoo boobee nag mu amoon nag dëkk bu sell bi di euh, Medina Baye ca la ñuy des euh, taxawaay bu rafet bi mu amoon ci dëkk ba sëriñam bi rawatina nag jamono ya gàmmu doon na ba tey lu muy fàttaliku moom Cheikh Sirajidine ñas mi nga xamee ne moom la ñu dénk nag commission culturelle ba ca COMAF jaale na ko ñaanal ko ñaanal ko seedeel ko nee itam tiis bi nag bette na bettewul waaye ànd ak lépp nag ña ngay nangu rek dogalu borom bi ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng. baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm dogali yàlla mi nga xam ne moom moo ñu indi ci àdduna sa heure bu ko neexee rek mu jël ñu jaam buy dund rek bés na ñëw nga jógee fi wax dëgg yàlla dami oustaz Moustapha Guèye nekk na loo xam ne bett nañu bettuñu ndax daaw bi mu ñëwee ci gàmmu gi doon def conférence bi ñu defee ba pare ndax ne ma sëñ bi ñaanal ñu yàlla ndax bu dewee ni ñu fekkeewaat gàmmu gi ñu sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla jël na ko ci weeram ndax weer wi la woo xam ne moom oustaz Moustapha Guèye baax a baax a baax a baax ci Dakar ak ci Fuuta léeg-léeg sax daf ko daan fekk ci tukki muy def ay conférence ci àdduna bi wax dëgg yàlla sant yàlla rek la ñuy def ci dogalam di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xare ko aljana nit la koo xam ne bàyyi moo ko yar ndax fii la yaroo ci Medina nekkoon kër maam suñ bàyyi Serigne Mbaye mu jàngee ci bàyyi bokkoon ak ñenn ci njabooti bàyyi gi ñoo xam ne ñoo bokk jàng ku mel ni tey ki nga xam ne moo fi tek tey di xalifa bi di moo Cheikh Mouhamadul Mahi ñu bokkoon jamono bokk lépp diine lislaam jàmbaar la woon ci tariqa bi jàmbaar la woon ci faydu bi di faydu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu mu jiite commission culturelle bu Medina Baye ñu ko daan gis gàmm muy conférence ci Medina Baye ak ci Taïba Niassène ndax lijjanti woon ku mel ni Moustapha Guèye mu ñëw Medina Baye def conférence euh, lu daan jàppandi la lu yomb na wala lu jafe waaw wax dëgg yàlla jafe na yomb na parce que li tax mu yomb mooy na moom suñ mag xalifa alxaaji Abdoulaye Niass mooy ki nga xam ne moo sàkk woon ci moom muy def gàmm def tàmbale ko fii ci gàmmu ko def di def ay waxtaan mu sant ko aussi mu tàmbale ko fii ci gàmmu Medina di ko def wax dëgg yàlla léeg-léeg dañ ciy bëgg a jot ci moom fekk mu nekk ci tukki wala mu mu xat trop wala mu fekk mu am ay programme yu bëri mais dafay dagg programme yëpp wax ne man de bu Medina soxlaa moom amatut keneen ku soxla da ngay ñàkk moo tax ba buñ ko soxla waan buñ ko ko waxee léeg-léeg mu am gàmm daf naa ne ah am naa barab gàmm de waaye dama koy yónnee amoon na thème buñ ko tànnaloon loo xam ne mi ngi ko waroon def ci gàmmuwaat gàmm bi ñëw nii gàmm bii di ñëw nii nii waaye nag gis nga yàlla jaam moom day bëgg rek yàlla dogal li muy dogal bon nangu nañ dogalal yàlla bu baax a baax ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ci dogal yàlla wax dëgg yàlla nit la koo xam ne nit ku oyofoon la nit ku am xam-xam nit ku jub nit ku baax nit ku bëgg bàyyi te jeex ci moom wax dëgg yàlla damm-damm bu rëy la ci pay bii ñu ngi koy ñaanal yàlla daal fa mu jëm mooy fi gën ci moom yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko aljana di ko jaale nag umma islami bi yëpp di ko jaale mboolem taalibe bàyyi di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaare murid yi xaadir yi layen yi chrétiens yi ndax moom kon nag damm damm bu rëy la maa ngi koy jaal waa Medina yëpp di ko jaal xalifa bi. mu nekkoon ay kaddu yi diina a Niass moom ma dëddu nag njabootu boppam ga yëkkati nañu ay kaddu nee nañu nag daañu tënku rekk ci la mu bëggoon muy ay càkkuteefam ci lu aju nag ci wàllu denc beek taxawaay bu rafet bi nga xamee ne njiitu réew mi amal na ko ci àgge nañu ko askan wi kenn ca njaboot ga moo yëkkati yooyu le kaddu ci waxukaayu Arona Niang bu fi jógee ay ndigalam la ñuy continuer bu fi ay ndigalam. dañuy ñuy continuer dama bëgg ñëpp xamee ko nii dañuy jàng kaamil bu ñu paree ñu ñaan ñu yeewi ñëpp actuellement nii président Macky Sall moo jël lépp en charge consulat France bi moom moo yor documents yi ñoom ñooy wax kañ lañ koy envoyé fii ci Sénégal bu ñëwee bu sooba yàlla bu wàccee dinañ ko indi fii ba ci kër gu mag gi balaa ñu kaa yóbbu Fuuta incha allah foofu lañ koy rob na ko ñëpp yëgee noonu bu ñu leen yeewee ku ci nekk na dem moom la nga xam ne laa la daan wax rek moom laay wax nee nit du am dëj nit ñi ñëw ku ci nekk toog di waxtaan jëmale suba ngay togg di yàq loolu da daan bañ ci dëj yëpp tere même bu dul dëjëm buñ ko wooyee mu am kàddu loolu la daan wax donc bu fi neewul it moom it dëjëm loolu lañ koy waxal amul ñetti fan amul juróom-ñetti fan amul ñeent fukki guddi lu mu bëggul woon duñ ko def waaw yéen ñëpp gisal ngeen ko ko ñi nekkoon ak moom xamal nañ ko ko moom fulla ji ak fayda ji loolu lañ ko ci xamee te diina ji lii la wax donc loolu la ñuy wax na ko ñëpp déggee noonu bis bu ñu xamee kañ lay koor bi di ñëw bu soobee yàlla ñëpp dinañ ko yëg su boobaa dinañ ko dëjal fii ci kër gi incha allah yóbbu rob ko wàccee kaamil yeewi nañu ñëpp kuy ñëw nag di jaale da nga ñëw dugg jaale nga génn dem soxlawuñu kenn moo tax duñ fi bâche bugg ko duñ ko def man la famille bi yëpp jox kàddu te lii laay wax te lii laay continuer duma ci changer dara fu la jëc nekkoon ci moom mi ngi fi ba tey te moom mooy continuer ci kër gi te ñun ñëpp juboo nañ ci ci ndigalu sama grand frère mooy kenn laa am ku ma mag muy Cheikh Ibrahima ci góor ñi te jël na kàddu gi jox ma ko te dinaa ko doxalee noonu bu soobee yàlla ak yonent doon junju imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé di imaam bu uh, Medina baay bi moom itam nag seddeel na ko rek mbaax ak yàgg liggéeyal l'islam ak pays bi uh, te lépp nag ci xam-xamam ba tax na itam mu ko doon ñaanal ak fàttali ne uh, tiis bi nag lu métti la waaye ànd ak lépp itam am nañu lu ñu ko muñee imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé mi ngi ci jokkoo bi ci téléphone ak El Hadj Ibrahima ni ñuy ni mu leen bind ay leen fi àddina ñu leen fi nar a jëlee yóbbu leen kenn par kenn ba ba ñuy jeex rek waaye ne lu ñàkk-ñàkk ñàkk xel boo xoolee sa boor gisoo sa bàyyi nga xool sa boor nga xam ne yow itam foo ko ndax lu métti métti rek foofu nañ koy xool waaye nag ki ñàkk moom ku màgg la borom xam-xam dem li ma njëkk wax mooy man xam naa ne liggéeyam ci lislaam bëri na lool liggéeyal na lislaam bu bari liggéeyal na lislaam doo ko juróom fukki at yoo xam ne ci lay dox ci lay wax ci lay tontu ci lañ koy laaj man xam naa ko bu baax ndax ànd nañ sax dem Indonésie maag moom ñaar fukki fan ak benn ñu nekk ci ñu tukki moo xam ne lépp avec lislaam la ak luy yëkkati réew mi nga xam ne ci lañ dëkk naa ko fii ci Sénégal tam ba baax a baax ba seen mbootaay googu ñuy wax wala ma aussi ay may bu hmm. ilimaan yi man mii la def président d'honneur yónnee ma ko yónnee ma diplôme bi te mosuma fa teew sax ci seen daje yi waaye ci mbaaxaayam la ko defee ak ne sa taxawaay du taxawaay ilimaan yi rek moo tax yow mën ngaa nekk suñu président ñun ñëpp fu mu toll te dëgg ragalu ci kenn waaw ah, ragalu ci kenn rusul ci kenn mën na ko wax lépp lu te nit ñi rek ci wax ko mën na ko wax dama nekkee commissaire amee aj gi gi daan na fi nekk ko def iliman waaye nag dafa ko wax mu jiital iliman yi waaye man dama nekkee commissaire ba ma egce màkka def laa ko wax na ko man fal naa la yow yaay jiite iliman yi nekk yëpp waaw ah, te loolu yëpp xam def ko mhm. demam nag métti lool inna ilaahi wa ko ñaanal yàlla yàlla bu mu ci kanamam yàlla bu mu ko bàyyi ci gannaaw te bu demee itam yàlla na dëkk ak Cheikh Ibrahima Niass mooy sëriñam moom rek a doon waxee moom la doon dundee mu basar bu bàyyi bii nga gis ñu mool bañ koy mool ci jamono boobu moom xale bu tuuti la waaye moom moo ko bind noonu lañ mool noonu ñu ne ay basar moom lañ naan basar waaye koy bind moom ci boppam ñaar fukki at ak ñeent la am ñu sa waagee ba koy bind di ci loxoom ñu koy mool boobu xam na ne ay ñaar fukki at ak nga xam am moo ko ci jamono boobu bëri ay baax baax la yoo xam ne téléphone mënu ko lim jàppante woon na ak moom lool ba fi mu nekk nii waxtu wu ñu waxee bis bi ko war a indi Dakar rek maa nga fa man incha allah. yéen a ngi déglu xibaar yi 90 ca taaxum kew ma ñu euh, duppe Cheikh Imam Assane Cissé xàll wa jëm ca Juma ya médina Baye ñu jóge ko médina Baye naka dem ca Coof ak maa ngi leen ko doon junju mere nañu lool naka municipalité bu Kaolack bi ñoom askan wa yeewoo ca Coof ak Mbambara comité de développement ba naka ñoo génnoon rek doon ko ñaxtu ceeb a janoo ko taskatu xibaar yi ñoom nag ndox ma ñu euh, dëkkal rek lañu ñu mën a tulo supporter dañoo bëgg naka ñu daal di ko fay jëlee ca na mu gën a gaawee bi àgg ci gàmmu gi yaatal ca loolee ak Cheikh Tidiane Diagne. bile yoon nag kenn xàmmeewu leen na ñoom jàngalekat yi ay ingénieur chauffeuru taxi ba ci sax ay taskatu xibaar takkee ci comité développement bu coof ak mbambara ñoo doon amal janoo ko taskatu xibaar yi point de presse bi ci digg ndox mi nekk ci quartier coof ak la ñu ko defee ndax kenn amul foo taxaw ci suuf si lépp ndox moo ko wër Tamsir Ndiaye mooy président comité bi takkee notable yi lee mënatuñoo dem ci poste de santé bi mënatuñoo dem seeti suñuy dëkkandoo mënatuñoo def dara ndax ndox mi mënatuñu sax voyage bàyyi fi sunu kër ndax ndox mi ñun dañuy am ay gani gàmmu te Médina ak coofak dañu taqaloo te fii ñu toll gan yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw coofak mën nañ ne gan yi ñëw Médina ëpp ñu leen te gan yi buñ fi ñëwee gis lii dafa rafetul ci kaw Kaolack ñu ngi wax rek nag ne nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi lillaay wa rasuuli ñu jëleel ñu fi ndox mi balaa gàmmu gi ndax tey pamaay doomam a ngi fi mooy xalifa Medina suñu demee ba ndox mu toll nii nekk Kaolack mu mun fee def lu mat 15 jours c'est normal nag ñu jóg yuuxu nag woote wàllu jaaxle ak mere kilifa yi nag la ñu boolee kër yu bëree bëri la ndox mi nangu ci biir quartier Coofak muy def ay dégâts yoo xamante ne ñu ngi law jamono ji ci kanamu askan wi Tamsir Ndiaye président comité de développement bu Coofak mu génn ñu rey ko fa kër goo xam ne da dem bay togg jaan génn ci fi ngay toggee ak bar nga daw bàyyi fa sa kaleere yi nga xam ne moom ngay toogee jigéen ñi nga xam ne tey ñoo waroon a dem marché parce que ndox mi fooy jaar dégâts yi bari ndax jaan ku ne xam na ne fu mu yàgg fu ne doon fa yeew te bu fa doonee yeew laneen lay doon ne déversoir bi fi ñu ko sotti woon daawu jéeg mënatuñ ko fa sotti ndax dafa am ay borne mais ñu ne leen bu mbalit ndox mi tey ak lu mu mën a doon mën nañ ci roose mën nañ ci bay ñi nga xamante ne nag ñoo dëkkee ci gox bi ne bëgg nañu ndox mi jóge fii nu mu gën a gaawee balaa gàmmu gi li ñu bëgg mooy nañ ñu ko fii jëleel balaa gàmmu gi loolu ñu ngi ciy interpeller directement monsieur le maire parce que ñun dañu bokk ci ñoo xam ne tey dañ ko jàppale woon ba nga xamee ne jàppale jot na dañ ko jàppale woon bi nga xamee ne tey suñu papa taxaw di Birane Ndiaye ñëw wax ñu projet wax ne dañ ko ànd ak moom jàppale ko ngir ñu soppi Kaolack soppi Kaolack boobu nag dañ ci bëgg a suñu bopp kon ñun njëkk ak la ñu woote neneen doxee na neen wala ñu defee na neen mënatuñu dëkk ak ndox mi te nag maire bi yëg na ko wax nañ ko ko coof ak mbambara di quartier nekk ci diwaanu ka gaawaan ak ngaan sayer moo ko wër fii nag boo fi ñëwee da ngay yaakaar ne yaa ngi ci ab déeg ab déeg la sax bu ñu sukkandekoo ci kàddu askan wi ndax xale yi fi mu ne ñu nga fa di dugg ci ndox mi ak itam di feey muy lu kenn mos a gis ci barab bi ñu mel ñu ne maire bi di Serigne Mboup la ñu bëgg mu ñëw xool mbir mi ba noppi ñu defal leen Tidiane Diagne tax na itam ñu ne nag la gën a jàmp rek jamono jile mooy nag ñu dikk pompel leen ndox ma ca seen i kàddu itam ña ngay mel ni rek ñuy bëgg a réccu la tax nag ñu faloon équipe municipale bi fi nekk lu ni mel nag ña ngi ko taataanee ci ay kàddu yi bàjjenu gox bii di Fatou Ndiaye Fatou Ndiaye mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. ñun jigéen ñi Coof ak Bambara on vit une très grande déception parce que ñun ñoo nekkoon ci terrain bi di defar pour changement bi fi nekk actuellement suñu bopp ñun responsable wala ñun bàjjenu gox yi nga xamante ñoo convaincre nit ba changement bi am mun nañ sax amatuñu baat parce que lii nii moo gën tuuti ci li nga xamante war nañu koo lijjanti fii ci coof ak ñun dañoo am suñu fulla ak suñu fayda ñoom ñoo war am xam lan mooy kaddu le sens de la parole donnée nit soo joxee sa kaddu da koy respecté à plus forte raison les autorités tey jii nii ñu ci bëri ñun ñu ngi nii liggéey intellectuels qui sont là de haut niveau nag duñu ay fla fla fi dëkk de wala ba ñu war leen blessé en rade kon duñ fi nekk di xeex di xuloo loolu duñ ko def mais la moindre des choses nañ xam ne coof ak bambara ci Kaolack la bokk ba def jotee def nañ li leen war ak ñun plus que sikki sax daan nunu kon nag ñun jigéenu coof ak dañoo am problème te ñoom li ñuy fàtte dañoo fàtte ne électorat bi jigéen ko yor ndaxte benn góor doo ngay dem vote ci ñun jigéen rek centre de vote lañ yore kon nag nañuy def très attention à ça affaire yàggatul de les autorités municipales lii ñëw jël

Sinko mi ngi fi benn société boo xamante ne day traité les eaux ak canalisation te ñoom ñi ngi dëkk fii ci biir ndox bi pourquoi ñoom duñ le temps le coordonné est mal chaussé pourquoi keneen itam euh, ku bokk nag ca boobule euh, comité moom itam nag ma nga doon euh, yëglu nee na nag ñoom la ñuy dund rek jamono jile dafa métti te jaaduwul ci jamono joo xamee ne sax day nañu nga dëgmal rek gàmmu international bu Medina Baye nee nañu nag mbir yi ceetaan dëgg da caa am ba tax na itam moom Baye Diawara nee na nag wàcc daanoo ca gën a gaaw bu saafara amul daañu leen dégg ca geneen anam ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. école moo ngi tijji dañu am ay doom yu nga xamante ni dañu war a jàngi fan la ñuy aw pour jàngi ñun nag coofoog lañ dëkk fi la ñu yàlla notu fi la ñu am kër suñu njaboot a ngi fiy dund fi la ñuy yeewoo amul ñaari Kaolack benn Kaolack moo fi am amul ñaari citoyen benn citoyen moo fi am ba voté jotee ñëpp dañoo jël suñu carte xëy suba teel dem dañ fi nekk pour doomu aadama yi ku dëkk Kasna gënul doon Kaolack waa dëkku bëgg nag lii nii di suñ problème muy ndox mii nii nelawuñu si jàmm yeewuñ si jàmm ndax ndox mi donc rek dañu oo tout un képp ku nga xamante ni bonne dëkk Kaolack ñu fi ne ak ñu fi newul ñëpp dugal si seen loxo dimbali ñu coofa ko xam-xam ne si quartier yu gën a si Kaolack ci la bokk depuis boobu ñu ngi yeewu su ndox mi di ci fanaan di ci dëkk nañu ñëw dimbali ñu dindi su ndox mi lii c'est pas un travail lii nekkul si a jàmm ak salaam gi moo ngi ñëw gàmm gi moo ngi ñëw ay gan ñoo fi ñëw gan gu fi yegg si guddi une heure du matin deux heures du matin fan nga jëm te xamoo coof léegi tey amal ngeen janoog taskatu xibaar yi bu fekkee amul benn saafara lan mooy doon plan B bi bon plan B moom collectif la te comité la dinañ si waxtaan suñ biir suñ si jógee dingeen ngeen ne jaar nañ si plan B bu ñu si amul saafara nag parce que lu ëpp tuuru voilà te mënutu ñoo xaar nag dàqoo leen ba def ay marche ak yooyu ah, suñ si yeggee di gis leneen parce que nag Coof nag moo fi gën a bëri population plus de mille personnes ñoo ngi yeewoo fii Coof ak bu gën a mag ku fi gagné électorat école Coof bi xam nga ne yaa gagné Kaolack donc nag am na lu nga xamante nii nag duñ ko seetaan suñ soxlaa suñuy baat ñëw dugg suñuy koñ du xuus suñ ndox yi ñu leen di photo ñu leen di jox suñ carte tey jii suñ soxlaa kenn du fi fanaan mais xanaa coof ak moom ay doomu aadama dëkkuñ fi Baye Diawara balaa ñuy àgg foofee nag moom a délégué de quartier ba moom nag ma ngay ñaan njekk kon jëmale ko rek ci mairie bu Kaolack bi ngir mu ak gestu leen jéego yi nga xamee ne boobaak léegi def nañu ko li ñuy xaar ci wàllu taxawaay donte ne boobaak léegi nag def nañu ay démarches yu dul jeex lépp nag ma nga ca doon dikkaat boole kooku di méttitlu jafe-jafe bu ni mel ndeene mbooc ci micro Cheikh Tidiane Diagne ñun ñëpp ñoo bokk benn métti tey ku ñëw xam ne wax dëgg yàlla métti na tey boo duggoon si yenn kër yi da ngay gis ñu teg ay taabul teg si seen cin ñi di si togg léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk nag fii à coofak ñu ngi doon def démarche yooyu ngir mbir yi mën a sotti voilà léegi nag fi mu toll nii ñun danañ jàpp bés boo xam ne danañ dem si sëriñ bi waxtaan ak moom si jafe-jafe yi nga xam ne ñun waa coofak Bambara ñu ngi koy dund fii tam nekk jafe-jafe yu méttee méttee métti fii ay jaan ak ay barmbooseek lu nekk dafiy génn xam ne ay xale dañ fee ëpp fii nii dafa bëri ay xale fi mu toll nii am na heure yoo xam ne kenn ñemeetul génn pour dem parce que yiñ fiy gis teg ko suñ bët moo waral loolu kon ñu ngi ñaan monsieur le maire Serigne Mboup ñu ngi koy ñaan si dal ñu ngi koy ñaan si yar ñu ngi koy ñaan si teggin que yi nga xam ne ñu ngi koy dund si coof ak mbambara ñu ngi koy ñaan mu ñëw xool li nga xam ne moo fi nekk wala mu yebal ñi nga xam ne ñoom la war a yebal ñu ñëw xool li fi nekk ngir ñu mën a xool ban saafara moom lañ koy am daaw am na benn site bu nekk fii si ginnaaw foofu lañ daan euh, pompe ndox mi mi mu fay dem jamono bu fi pompe bi nekkee nag wax dëgg fa yàlla nekkoon na loo xam ne yomboon na fii te métti wut yaa ngi dégg mais bi fi pompe boobu jógee ba léegi jafe-jafe yi dafay gën a yokk voilà fan yi yëpp ñu ngi doon def ay démarches pour ut ay pompe ak ay raakool yoo xam ne danañ ko mën a yóbbu foofu mais suñ doolee moo moteewul foofu waaye ñi nga xam ne nag ñooy autorités yi te yàlla dénk leen dëkk bi dañ leen di ñaanal yàlla nañ am ndamal Kaolack ndamal Kaolack bokk na si lii nga xam ne ñu koy jooy ñu saafaraal ñu ko actuellement nii nii nii nii nañ xam ne dañ koy yóbbu ba si taliba dugal ko si canal bi wala ñu yóbbu ko si site yi nga xam ne foofu lañ daan sotti ndax affaire bi mën a dem fi mu nii ak si bassin bi fële cinq zones si coof ak yëpp boo si dem da nga yaakaar ne foofu a évacuer dem mu nekkoon ay kaddu délégué de quartier bu coof ak coof googee sax naka fa ñuy jaar rek utali ji dàgg bukki ab dëkk la ca département bu ngin gi néew foofee sax nag ni ki tey jii fa ñuy defee rek suñu reportage yu bés bi dëkk boobee nag ana lan mooy taarixam waaye itam nag kañ la ñu ko sosoon ak jafe ya nga xamee ne askan wa ña nga koy dund loolee lépp nag suñu ndaw gëstu na ko moom Noab Yaay. Dagabouki fi ci departement bu Guinguinéo dafa nekkoon amoo ci atum 1950 balaa mu nekk village à part entier ci atum 2020 ñu sukkandikoo si suñu guide mu wuyoo si tur Serigne Fallou Diène Faye. village bi mu ngi juddu vers les 1950 benn pël bu ñu wax Kanté Diallo moo ko créé Dagaboki ak Makakawul ñoo bokkoon même village mais en 2020 après concertation waa village bi si lañ décidé def une demande l'érection de l'hameau de Dagaboki en un village loolu mu ngi xewoon le 20 août 2020 lettre bi monsieur Sarlo Ndiaye bu loolu amee su préfet bi bu mu si jotee dafa joxe ndigal benn agent bu ñu wax Youssoufa Pouy agent chargé de l'étude socio-économique de l'hameau de Dagaboki loolu c'était le 10 septembre 2020 moom Moussa wax nañu daga bukki lu mu tekki nee nañ lu muy tekki mooy saq yi nekk ginnaaw guy yi jamono guerre mondiale tubaab yi dañu doon jël lekk ja nit ñi comme dañu doon jël seen lekk ñoom pour ñu làq seen lekk ñu dañ ko jëloon def ko si ginnaaw guy yi ñëw ba suñu dëkk ñu def ko fa ñu tuddee foofu dagg bukki foofu la tour bi jóge ginnaaw loolu yëpp dëkk bi am na ay manquement tax na dëkk bi mun a développé seriñ Fallou jenn fay moo ñu ko xamal dafa nekk village boo xam ne dafa bëri ay jafe-jafe école primaire njëkk a dëkk dagg bukki était en 1951 boobu amul clôture te dafa tax xale yi nga xam ne ñoo nekk maternelle ñi fa jàngee ñoom mënuñ génn récréation parce que ñu ngi xalaat ne à tout moment saret mën na jaar si biir école bi dal seen kaw classe bu ñuy jàngee ñoom xale yooyu classe boobu il n'est pas en bon ci fekkente daga bukki dafa am ay jafe-jafe mu dem ci wàllu jàng ak jàngale ba ci ñeneen yoo xam ne mun na àndil développement ci gox bi askan yi ñooñu ñiy ñaax autorité étatique locales ñu gën a gaaw taxaw ci seen problème noi bi yaay ca problème yooyee ñun itam nag ca la ñuy taxaw sax daal di cay teg baaraam difficulté ya nag la muy bari bari itam am na lu ca gën a fës ak it lu ca gën a jàmp ngir am ay solution bu ñu sukkandikoo ci kàddu doom yi dëkk ba di Serigne Fallou Diène Faye jeunesse su dëgg bëgg dafa manqué soutien de la part de ses autorités loolu ci Sénégal wërgër képp mais suñu côté dafa fës que doo gis emploi yu ñu fa créé bi amul si lu muy yëngatu amuñu formation te xam nga ne tey ku amul formation amoo liggéey day métti si yow foyer bi dañ ko clôturer mieux bi daa daanu benn salle bu ñu fa tabaxoon salle bi kenn xamul lu muy niroo salle bi mënuñ ko jëfandikoo déjà zinc bi baaxatul buy taw day senn ñun daal bëgg nañ réaménagement parce que amicale des élèves et étudiants Dagabou seen journée yi bu ñuy organiser les quarante huit heures de l'AED foofu lañ koy amalee vraiment nekkatul en bon mais loolu tamit buñ ko defaree dina tax waa dëkk bi sax ñoom ñu mën a am fu ñuy dalal seeni gan politique bu am politique la mais religieusement tamit parce que dañ fay amal ay jàng yu dem si diine si yeneen beneen ko anam njiite woon nañ foyer bi ñu defaraat ko boo xam ne suba nit ku diine wala ab nitu politique bu fa doon ñëw ñu am fuñ ko dalal côté santé Dagabëkki am nañ fa case de santé mais case de santé bi dafa yàgg donc woon nañ tamit ñu defaraat ko mais tamit mu am ay suffisamment de médicaments suñu xale yi buñ nekkee école ñu am lu leen di métti ñu mën leen fa indi route bi relier Dagabëkki ak Mbadakhoune tey pour nga dem commune de Mbadakhoune ci yoonu suuf ngay jaar temps yi bu tawee kenn mënu ko jëfandikoo ndax dafa bari ndox ndoxu taw bi dafay fees neexu taw jëkk suñu terrain football bi normalu bëggoon nañ ñu defaral nañu ko am terrain bu normal foo xam ne dinañ fa mën di tàggat yaram parce que tey sport dafa bokk si dund rawatina xale. yéen a diglu xibaar yi ci Alfayda FM. 90 a ngi ci Alfayda FM ngeen di wey wéy bëccëg di fi taataani ay xibaar yu wér te wóor gannaaw nag tabeefu gouvernement bu yees bekk coppite yi ci am ay borom yi xam-xam nag jàngat nañu ko waaye nag la ci gën a fël seen ko xel mooy coppite gi ñu nemmeeku ci ministre de sport bi waaye itam nag tofo yu yees ya nga xamee ne ñoom lañu ñu toftal ci jëwrin yi ak it ndaw ñekk seen ko tabeef yile biir ak yeneen waxtaan nañu ci ak Alioune Badara Diop. ci ndaw ñi gis seen bopp ci li ni mel mu mel ni loolu la njiitu réew mi xam ba tax gouvernement bu bees bi nga xamante ni kii di Amadou Ba moo ko jiite ñu gis ci teewaayu ndaw ñi bu baax a baax loolu nag bokk na ci constat bi nga xamante ni kii di Youssoufa Mariama ni def na ko. waaw c'est vrai que gouvernement bu bees euh, taxawal nañ ko il y a quelques mais boo xool pratiquement ay xale lañ loolu nag man je pense que amul ci jàngat yoo xam ni mën naa ko def particulièrement ndaxte Macky mu ngi fi depuis 2012 lu ne c'était pour promouvoir jeunes yi pourquoi il l'a pas fait depuis 2012 lu tax laa laa maintenant alors que moom presque mandaam jeex na lu tax léegi mu pour peut-être promouvoir leen ci poste ministère donc je pense que vraiment c'est pas pertinent <laughs> à mon avis donc euh, beneen affaire ne wax dëgg la comprendre moo ba ministre auprès du ministre loolu nag ñoom après lan moo mon avis amul c'est des postes nga c'est juste pour récompenser la moo des ñu dem ci li nga xamante ni mooy coupe du monde bi war a am foofu ca Qatar ñu gis coppite boo xamante ni am na ci ministère des sports maanaam jëwriñ ji nga xamante ni moo yor wàllum tàggat yaram bi di Matar Ba loolee nag bu ñu xefee mën na indi ay gàllankoor ci équipe nationale bi rawatina ci mondial bi lii nag moo di kàddu journaliste sportif bi di wuyoo ci tuuru Youssoufa Mané. Matar Ba bokk na ci lu tax ñu gagné sunu premier titre continental au ci processus bi ak fédération pour organiser la participation du Sénégal à la coupe du monde au Qatar yi xam ne dans ñaari weer la war a tàmbali lu tax Matar Ba boobu noonu te ñu changé ko jokk poste beneen ministre bi nga xam ni est-ce que dina am jot pour mun a maîtriser dossier yi pour mun a maîtriser paramètres yooyu yëpp pour Sénégal mun a def participation bu am solo participation bu baax ci coupe du monde bi Qatar donc loolu doon na nga xam ni wax dëgg la man tiit ñenn ñi amuñu sakkaloob ñenn ñi am nañ ay gaañ-gaañ ñenn ñi ci bambi la ñuy toog donc fàttali gouvernement bu bees bu Sénégal taxawal nañu ko ci gaaw bi ñu weesu te nag ki ko jiite du kenn ku dul du baax ginnaaw bi ñu samp sampi bile gouvernement bokk na ci li gën a fës ci li ñu war a liggéey mooy di jàppale askan bi rawatina jafe-jafe yi nga xamante ni réew bu Sénégal ñu ngi koy jànkonteel ci jamono ji ñu toll. di ko jaajëfal lu euh, bare bari des ba tey ci wàllu euh, coppiteek ci ngornement. man googee nag ba tey Mamadou Talla moom nag moo deltuloo ginnaaw wàllu njàng meek njàngale mi te it nag lu yàqu rek ci système éducatif bi moom la ndaxte itam mësta nangoo diisoo ko jàngalekat yi mësta nangoo dox ay tànki jàmm lu ni mel nag waa SADEF ya ñoo ko xamle boole koog itam nag diril ko ci gannaaw nag ba ko génnee ci gouvernement bu yees bi lu may loolu itam ña ngay sàkku ci Cheikh Oumar Anne mi ngir nag mu teel a xam li koy xaar ne am na fi pataas bu tàng jër mbay Sarr secrétaire général national bu SADEF moo ko xamle ci micro Arona Niang. Mamadou Talla ginnaaw bu mu jógee ci bopp ministère de l' éducation nationale ñun jàpp nañ ne le système éducatif sénégalais dina gën a am beneen élan parce que dañoo jàpp ne Mamadou Talla diirab temps bi mu fi def yépp dafa bloqué woon le système éducatif parce que kenn masul gis Mamadou Talla mu jóg sol dàllam pour anticiper sur ay crises yu war a am ci école bi kenn masul gis Mamadou Talla également mu dégager stratégie pour jéem a jeexal crise bi ci anam yu gën te dañ daan gis ministère de l' éducation yi fi nekkoon yépp notamment le ministère Kalidou Diallo wala le feu Moustapha Souran dañ doon xar seen tànku tubéy saa su crise école amee pour ñu jéem a saafara crise bi waane loolu lépp daaw di gis Mamadou Talla Mamadou Talla da daan def lenn lu dul muq mu xaaral la daan def ne cal kenn daaw ko dégg mu yëy yàbbi ñu nag ministre buy jóg di yëkkati sa kaddu di yëy di yàbbi di def di dindi ministère boobu lañ soxla ñi ngi xaar ci Cheikh Omar Anne mu jël ay dogal yu mat sëkk pour que doxalin bii nga xamante ne bi moom la ministère de l'éducation nekk woon te doxalin bu bon la woon mu redressé ko pour que système éducatif mën a delluwaat ci anam yi mucc ayib ñi ngi xaar également ci Cheikh Omar Anne mu teg en place un dispositif de dialogue sociale bu nga xamante ne bi acteurs yi nekk ci école bi yépp da leen di dajale ñu ànd toog di nasandoo di noccandoo pour que système éducatif mën a jëm ci kanam loolu la xaar ci Cheikh Omar Anne mu def ko ci nu gën a gaawee bëgg a système éducatif bi jóge ci guddi yi mu nekk dem ci yeneen i guddi pour que njàng mi ak njàngale mi mën a jëm ci kanam Mbaye Sarr moomee nag doon addu mooy secrétaire général national bu syndicat bi di SADEF euh, SADEF nag mooy syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la euh, formation des ba tey ci wàllu njàng meek njàngale mi euh, a tey nag waa franco arabe bi itam ñoom i nag biral nañu rek seen i ay càkkutéef waaye itam li ñuy xaar dëgg-dëgg ci jëwrin bu yees bi ngir nag lu gën a ñongal système éducatif bi rawatina nag njànguma franco arabe lu ni mel nag ca addu mooy El Hadji Mamadou Diago ci waxtaan yu mu seq ak Nouakchott. ñun nag ci contexte gouvernement bu bees bi ñu fal lañ bëggoon a profiter rappeler ministre bu bees bi ñu dénk éducation nationale bi muy Cheikh Omar Anne que bokk na ci lu mu war a njëkk a jàmmaarloo ci jafe-jafe ci système éducatif bi ci éducation nationale bi mooy problème yi nga xamante ni système franco arabe bi ñu ngi koy dund ci loolu rek ñu koy fàttali dalil ne kenn werantewul ne ba jamono ji ñuy wax système franco-arabe bi mu ngi souffrir ci manque de salle de classe yi nga xamante ni dañ koy nemmeeku ci école élémentaire yi collège yi ak lycée yi mu nekk ay écoles yoo xamante ni déjà dañoo fees bokk na ci problème yi nga xamante ni mu ngi gàllankoor système bi bu baax mooy yenn collège yi nga xamante ni fi ñu nekk dafa sori te nanguwuñ leen def lycée te loolu dafa bokk ci li nga xamante ni mën na arabe yi bañ a continuer système franco arabe bi bokk na ci tam ci problème yooyu noonu mooy programme bi nga xamante ni depuis ñu sos franco arabe ba léegi daanaka xoolaatuñ ko te mu nekk programme bu xaw a compliqué bu ñu war a xoolaat càmbaraat ko su ko defee ñu defaraat ko ba nga xamante ni dina méngoo ak excellence bi nga xamante ni système bi moom lay doxal te loolu su amee rek dina yombal benn assise nationale boo xamante ni dina permettre ñu problème yi exactement yan la ñu man ko résoudre su ko defee franco-arabe bi continuer ci démarche excellence bi nga xamante ci la mosa nekk. El Hadji euh, Mamadou Diago moomee nag mooy président national bu euh, MEFAS MEFAS nag mooy mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal ñun ñu bàyyi Sénégal ut li ji euh, biti réew. réew. Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, soxna Ngone xibaar bitim réew dañ koy dooree ak euh, dëjoo kii di la dangal d'Angleterre di Elizabeth II ci ndaje boobu nañu jot fa gis ay kilifa yu mag a mag yoo xamante ni fu ne jóge nañ ko ci àdduna bi ngir kat teewee bi la dëcc wante gisoon nañu ci ki nga xamante ni mooy général Abdel Fattah al-Burhan moom mi nga xamante ni moo jiite junte bi nekk foofu ca réew bu Soudan ginnaaw ci coup d'état bi nga xamante ne am na ci at bi ñu weesu moom moomu la def na déplacement comme ni ko ñëpp defee teewee bi la dëcc ngir kat gunge ki nga xamante ni mooy la reine d'Angleterre di Elizabeth II ci këram gu mujj foofu ca Londres wante moom mu la bokkoon na si ñi nga xamante ni ay persona non foofu ca Londres la woon mbir mi nag naroon na jur ab jéya ci bile daje wante teewul ni moom général Abdel Fattah al-Burhan bokkoon na si ñi gunge woon la reine d'Angleterre ca këram gu mujj foofu ca Londres. xabaar yi. RDC Congo la ñuy dem wax ci ba tey li nga xamante ni mooy insécurité alimentaire bi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy jànkonteel ginnaaw contrat bi nga xamante ni waa ONU signé woon nañ ko ak RDC Congo di Bruno Lemarquis ginnaaw bi ñu gisee jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi yeewu foofu ca réew bu RDC Congo ñu ngi koy jànkonteel ci wàllum insécurité alimentaire wante lim bi nga xamante ni def nañ ko ci askan bi yeewoo ak jafe-jafe yi ni mel lim bi mu ngi tolloog ñaar fukk ak juróom-ñaari million ci doomu aadama yoo xamante ni mbir moomu leen mu ngi leen concerné na jooju nag gouvernement bu RDC Congo mu ngi jël ay matukaay yu mat sëkk ngir ka jàppale askan bi nga xamante nii ñooy jànkoonte yi la jafe-jafe yi. bitim réew Burkina la ñuy dem wax fa ay cong yees yi nga xamante ni jot nañ ko fa nemmeeku rawatina ci wàllum jaww ji mbir moom na mu ngi am ci àllarba bi ñuy weesu fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar ci région bi nekk ci Oudala bokk ci extrême nord bu réew bu Burkina Faso ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci yenn source yoo xamante ni ñu ngi nekk foofu ca réew bu Burkina Faso rawatina kuréel taskati xibaar bii di RFI di ñu xamal ni waxtu bi ñu toll moom réew bu Burkina jël na ay matukaayam yu mat sëkk ngir kat xeex ak foofu ca province bi dend lool ak frontière bu ñaari réew yi bu ci mel ni réew bu Mali ak réew bu Niger. xabaar yi bitim réew. jeexale xibaar bitim réew wax ci assemblée générale bu ONU bi nga xamante ni door nañ ko ci altine bi ñu weesu foofu ci États-Unis assemblée générale boobu nag bokk na ci li gën a fës ci loo xam ne dañ ci doon àddu lu ci mel ni guerre bi am ci diggante ñaari réew yi di réew bu Russie ak réew bu Ukraine wante tamit crise climatique bi nga xamante ni nañ ko rawatina insécurité alimentaire bi nga xamante ni jot nañ ko nemmeeku ci yenn ci réewu Afrique wante tamit crise bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci àdduna wërgal këpp ci yenn ci ay njiit ci talaata bi ñu weesu nag ca boobule assemblée jël nañ ci ay matukaay mat sëkk ngir kat jéem xool nan la ñuy def ba dindi yi la jafe-jafe yi nga xamante ni àdduna bi ñu ngi koy jànkonteel jërëjëf ngoon yi foofu la ñuy buree xibaari bitim réew yi cant ak ngërëm ñeel la jaa ngeen jëf. xabaar yi bitim réew. bak boobee nag tàggat yaram gi lay eh, yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu bokk auditeurs yi di la jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram bi dañu koy dooree ak gaynde gu yees gi nga xamante ne nag yegg si na ci tanière bi te Aliou Cissé oo ko muy Nicolas Jackson ki nga xamante ni ma nga nekk fële ca Villarreal ca Espagne nag daal dinay wax ni mbégte la am ngir ñëw ci équipe nationale bi nekk na gént goo xamante ni fréeku na. Nicolas Jackson ay kàddoom. ma kontaan xanaa kontaan rek. c'est très content et dama kontaan trop suma première sélection la. yàlla naa lu bëri topp. yu bëri ñëw ñëw soobee yàlla. ak sama compagnie la. Um, ñu gën a nekk si jàmm quoi. Mm-hmm. ñëpp nekk si jàmm. loolu laa bëggoon. loolu laa bëggoon di bi bu ma nekkee xale comme ñëpp. waaw léegi tey am na. sant yàlla ñu sant ko yàlla ñu ñaan yàlla gën jàppale. ñun ñëpp mhm. ñu gën ñu bàyyi fii quoi. Mhm. Euh, incha ma indi comme lu ma xam mooy liggéey. ak jàppale équipe bi daaw gars yi nag jëloon ñun ñoo ñun ñoo jëloon coupe Afrique bi. équipe Sénégal ñëpp la ñoo jël. loolu laa bëgg ñëw jàppale équipe bi renforcer lu daa dara manqué wu mais ñëw renforcer. ak jouer ak ak équipe nationale incha allah. ci des ba léegi ak groupe Aliou bi nga xamante ne ma nga ca Orléans jamono ji jóge na ci ñaar fukki footballkat ak juróom ñeenti dem ci ñaar fukki footballkat ak juróom-benn li ko waral nag moom ay forfait yoo xamante ne ni nemmeeku nañu ko ci biir équipe nationale bi ci ñenn ci footballkat yi ginnaaw bi nga xamante ne am na ay gaañu gaañu keneen delloo ko ci nag boo moytuwul sax moom du bokk ci jogante bi di euh, gardien numéro un bu équipe nationale bi di Edouard bi nga xamante ni am ab gaañu gaañu ci genou bi ñu waxtaanee CHAN 2022 groupe championnat d'Afrique de nations yi nag des na amal tirage au bi nag ca Opéra ba nekk ca Algérie ci biir réewum Algérie benn fan ci weeru octobre bi nga xamante ni Algérie mooy dalal xew-xew bi ni mel nag gulet tournoi bi nag nar dajale fukki dëkk ak juróom-ñett juróom-ñaareelu édition bi nag jàpp nañu ko fukki fan nekk ñett ci weeru janvier ba ñeenti fan ci weeru février atum 2023 ci dendu ko Europe Ligue des bi nag dina door tey jii bu juróom-benn waxtu jotee teg ñeent fukki simili ak juróom ci ligbee bi nag bëccëg bu njëkk bi nag Écosse dina laaleeg tey ci ngoon gi ak réew ma Ukraine ñu daal di koy jeexalee ak MMA Glata combat fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2023 digganteem ak Tafatine kii di Bombardier nag dina amal ñaari combat ca MMA bu njëkk bi dina ko amal sam gi ñu dëkkmal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru satumbar digganteem ak doomu Brésil bi di Jairzinho Magog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanee lekk ndaa yu jàmm li ma gënoon a fas ci xibaaru tàggat yaram yi jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci euh, yéene kaay yeeg El euh, ahlan bikum Macky Sall njiiti réew bu Sénégal moo nekkoon avocat wu réewu Afrique yi ca assemblée générale ba mbootaayu xeet ya doon def ca réewum Amérique si du quotidien moo ñu ko xamal la solo yéen kaay na ko kàddu yam fa yëkkati fa xam solo lool te la ca gën a fës mooy ne fa bëgg Afrique am liberté lii yéen a kaay na Macky fa wax jafe-jafe réewu Afrique yi boole ci wax fan la ñu jaar ba saafara ko te mooy yéen a kaay na ko Macky fa wax bilan réewu Afrique ba pare nekk seen avocat ndax moo jiite mbootaayu réewu Afrique yi Afrique la dépêche yéen a kaay ne sàkku na ñu fexe ba Afrique am toogu ca mbootaay ga ñuy wax G20 si yéen a kaay na ko moom kay fexe na ba kàddu Afrique moom dégg nañ ko alerte yéen a kaay ne faa leen di tënkal la fa Macky Sall wax wàllu énergie wàllu kaaraange wàllu climat bi ak wàllu terrorisme lii la fa wax l'évidence yéen a kaay ne kàddu Afrique la nag pour muy leer ci les se ko a kaay njiitire Macky Sall ne réewu Afrique yi fañ leen a yàgg a noot fa jot nag ñu soppi doxalin ak yoon ñu war a jaar mën a suqaliku suufu Afrique bëri na ay koom am nañ ay ndaw yu jàmbaare le quotidien yéen a kaay ne Biden njiiti réew bu Amérique moo waroon a wax place palaasam mu jox ko Afrique Sénégal Macky nekk ñaareel bu yëkkati kaddu te ñun ñoo war a nekk juróom-ñaareelu kilifa bu yëkkati kaddu direct news ne Macky kay fa la wax fukki dëggam ak juróom-ñaar leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiit réew Macky moomu bi mu demee Amérique New York ay sénégalais moodu moodu fa ñoo dajaloo di ko yooxoo naan ko wuuwuu yooxu ya wuuwu ja takkarnaase naan Macky Sall dictateur la troisième mandat kenn du ko am ci réew ma fa ñoo ñaawlu doxalinam ca kanam takk deru tubaab ya waaye sénégalais yooyu doon ñaxtu kenn laalut leen kenn jàpput leen ndax Amérique fa am liberté moo tax farandooru Macky Sall ya ak jege ñaalam ya fa ñoo am lu leen naqari ci yooxu yañ ak ñam àndal ñoo jiite woon yooxu yëkkati yéen doon yooxu démb Macky ñaawlu doxalinam ca New York yéene kaay bi ne Macky nag fa mel ni image am bitim réew fi mu toll ni fa ñaaw ndax tubaab yëpp gis nañ ne Macky askanu Sénégal ña ca gën a bëri fañ ko wan ginnaaw ñaawlu doxalinam yéene kaay bi nag xanaa du loolu moo tax ngir defaraat image am daal fa dem jël groupe boo xam ne fa ñu yëngatu ci wàllu publicitaire ñu aay lool ca Amérique ñu fay leen xaalis ngir ñu bind kàddu yu rafet yu baax ca Macky yéene kaay métti xée xiiroo ŋaayoo ba daal ñàkkante ba ba léegi dañu gut nekke gars yi fa jeex na waaye démb député yi wane waat nañ seen bopp blocage moo fa am neuf heures temps yoo xam fañ ko amal ci retard ngir fal ñoo war a jiite commission ya mujj gi daal quatorze commission ya rectifié nañ ko tey jii nag la amal vote ya source a yéen a kaay na lu duy njaaga waaye yeewi la waaye tamit commission yi boo gisee gars yi di ko xëccoo fa am mbaqus di fa keroog bi ñu taxawal bureau assemblée yéen fa ngeen di jël poste bu njëkk un ba sept su ko ñun ñu commencé huit ba jàmm na ñooy député benn yi nañ leen fa ñoo bañ ndax su am na ay commission yoo xam ne ma ca dix ak onze ak fa am solo lii moo waral xëccoo bu métti léeg si ko yéen kaay ne seetlu nañ fa démb tamit ne député yeew yi fa ñoo sol mbaxana joolaa yooyu noonu lépp ngir wane seen ak ci Alphonse Sambou xam nga mooy député bi soloon keroog moom tamit Barthélemy Diaz bokkutoon ci wote yi le mandat yéen a kaay na ko voilà Barthélemy Diaz moomu nag tey la tey de tey jii lay dem tribunal ngir ñu xam ndax fañ koy bàyyi setal ko wecc wala boog fañ koy tëj kaso ci mbiru faatu njaga juuf ba la amoon atam l'observateur ne ñetti yëf daal moo ci nar a am la xam ca benn bokk yaakaar jamono ji mooy fexe ba jëlaat ndakaaru njaay gañe ko ci wàllu élection enquête yéen a kaay na leen hée <laughs> du yomb de ndax askanu moom fa ñoo woon Macky Sall ginnaaw ak ñim àndal kon na soxla de keneen ko am soxla mooy Cheikh Oumar Anne bi ko Macky falee ministre éducation ba léegi sénégalais yu bëri fañ naan su ko defee xaj moom di mbaw te du leen faale amul jot le mandat yéen a kaay Sall fa kaj ji dàq Ba ci ministère du sport waaye laaj bi mooy est-ce na Macky fay protéger Matar Ba maanaam fa koy aar ñu war aar sénégalais yi nag ci seen jafe-jafe lijjanti ko mooy gouvernement bu bees bi ba tax l'observateur na dossier bu njëkk bu mag bii xaar Amadou Ba gouvernement bees bi mooy dund na askan wi dund gu cher gi ñu fexe nuñ ko wàññee Mamadou Lamine Diallo tekki ci 24 heures yéen a kaay ne yéen foog ngeen ne Amadou Ba mën naa saafara jafe-jafe sénégalais yi dund gu cher gi ñoom seen ah yéen loolu ku leen ko wax da ko gëm la waree journal ne ah en fa xam ay dossiers tàng jir yu ne këtt na jonn dafañ ko war a lijjanti ginnaaw fal nañ leen ba pare léegi nañ jublu ci liggéey bi yow seetal fexe ba dund gu cher gi fexe ba ndaw ñu am xëy fexe ba mbënd mi dootu fi amati ba pare ñoŋal wàllu mbay mi lii moo leen xaar nañ gaaw ko laneen lu Macky Sall war a lijjanti mooy geraw bu takkarnaase bi am jamono ji ci réewum Sénégal réew mi presque foo laal féppay métti ñëpp a ngi ñaxtu ak a geraw yow seetal docteur yi fi mu toll ni fa ñoo geraw ñetti fan ñu ne déetawaay ñiy liggéeye ci maire yi état civil ak ñoom seen fa ñoo geraw léegi nag secteur primaire bi ñoom it fa ñoo geraw liggéeykat ya nekk ca ministère bi yor wàllu mbay mi ak napp gi ñetti fan lañ geraw ndax ñoom ñëpp fa ñoo am ay jafe-jafe bokk na ci wàllu indemnité xaalis alati yéene kaay na jeex a boo moytu tamit këru roppalaan yi avion yi danañ am jafe ngir naaw dugg Sénégal wala ñu génn fi leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy accident yi tamit bari na ci réew mi de ñiy faatu ci kaw tali bi ba tax réew mi yéen a kaay na faay laajte camion yi nga xam ne fa ñu rey nit ñi kan moo leen mën a feree ne arrêté leen ngir yàlla l'observateur na ko faay dëggal li nga wax ab camion boo xam ne fa dof maanaam fa saaraar di fararari fa rey ñaari nit ca VDN ba ak ñetteel boo xam ne ma nga ca diggante dund ak dee turbine yéen a kaay na ak benn 36 dee nañ ci fukki fan ci ay accident fii Sénégal fa ñaaw laneen lu ñaaw ba yegg ca lool mooy benn kilifa gu mag ci état Sénégal doomam ak rakam fa ñoo sàcc ñetti téeméeri millions ak juróom benn fukk ci benn société ñu jàpp leen waaye biñ leen jàppee kilifa yi fa ñoo mës-mësal yëf nëbbu ko pour bu ko kenn yëg am na sax député benn bokk yaakaar boo xam ne tudd nañ ko ci yëf la rawee yéene kaay ne ànd ak li ñu def ni garaawee waaye taxut ñu tëj leen kaso de fañ leen a téye bàyyi leen ñu dem ñibbi ndax seen bàyyi kilifa la ci état bu réew mu xam yoon foo ne nun lay doxee kumba xam day kumba xamul day li baaxut laneen lu baaxut ba tey ci wàllu sàcc xaalis libération moo ñu ko wax un milliard yu jege ñetti téeméeri millions détourné boppam les ko yéen moo ñu ko xamal yaw seetal xale bu jigéen bi fukki at ak ñeent la am fa fàq daw dem dëkk ak faram ñu mel ni jëkkër ak jabar du def lu leen neex ak lu leen saf ci lu bon te far wa nag fukki at la am ak juróom benn yëf yaa nga amee ca diwaanu Pikine Ndakaaru <laughs> waa ma ne ah man de xale yi jigéen jaaxal nañ ma quatorze ans ngay faq di fekk sa far dëkk ak moom ni jëkkër ak jabar ana waw bët ana ñàkk kilifa faa jëlee la ñàkk diine boole ci capable li ci euh, yéenekaay yi Choukran euh, El Hadji euh, Oumar ponk sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi jaajëfal ko moom Serigne Moussa Kane ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag duñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi ñanal nañu leen mucc ak muccule jaami biir ak biti tawfiq ak taysir jàngeen jëfati. Le journal Ngoné Ndiaye